di fay sëñ Moustapha ñu lay laaj noo gisee tey ñuy waajal inauguration Massalikul Jinaan ak tey ji nga xam ne journée ji lañ tuddee Cheikh Mouhamadoul Bara Mbacké waaw sant naa bu wér ci teew gi ma teew fii euh, ci Masalikul Jinaan gii nga xam ni dañ ko jox euh, Alaaji Mbàkke Fay mu jiite ko muy sama mag di sama kilifa di sama xar euh, inauguration bi ñu koy tàmb bi sëñ bi ñëw fekk mu fi Abidjan la mu fekk ci Grand Bassam bi biig laa ñëw moo tax ma ñëw ci bésu sëñ Fàllu bii xam ne alaaj baara mu te tegoon xeeru fi kon ñoo ñaan alaaj baara yàlla na yàlla yokk leeram yàlla yokk leeram ci fa mu tëdd ñu daal suñu xol set na guy ñëwee gis bërëb mel nii ndax bërëb mel nii Afrique amu fi sëriñ bi nag moo mel noonu ay mbiram amul tànk ginnaaw tànk kanam rek lam am waaye bi ma gisee image laa ni Serigne Touba daal ay mbiram amul tànk ginnaaw tànk kanam la am ndax suñ tamoon naa dellu suwaat dellusiwaat doon sëñ Muntaxa ñëw Ndakaaru waaye ku gis bésam bii xam ne sëriñ Touba kenn xamul lu mu doon sëñ Touba daal dañ koy sant wér rek kenn xamul ay mbiram ca kaw ca kanam rek la jëm kon ñoo ngi sant bu wér suñu xol sedd na guy yombul am ko yombul waaye nag ki yore gérance bi Alaaji Mbàkke yu fay moom li war. ci béréb yëpp dina ko def dina tax dina dina dina dina ñu ko gérer parce que liggéey bi yomb na liggéey bi liggéey bi liggéey bi am na ba pare waaye gérance bi xam moom moom ñu ko teg ci loxoom Alaaji Mbàkke moom dina ko gérer ba nga xam ne du am dara lu faay xam naa ko ci moom.